asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit di tedd yi ñuy seetaan mbokki àddina yi ñoo ngi am mbégte lool ci jàkkaarloo ak yéen ci bis bu tedd bi waaye ci ëtt bu tedd bi di ëttub Cheikh Mouhamadul Amin Gaye si di kenn ci jàmbaari Cheikhul Xadim yi di leen dalal bu baax yéen waa ITV ci ndigalul sëriñ bi di sëriñ Mouhamadul mustafa ibnu sëñ Alamin ibnu sëñ Mouhamadul Amin Gaye di am mbégte lool ci seen kilifa yi leen yabal ci ëtt bu tedd bi ngeen ñëw fi ci occasion euh, bisu màggaluk ashrina muharram euh, di màggaluk euh, ñibbisik sëriñ bi ci dëkk bu tedd bi di am mbégte lool nag ci bis bi waaye di am mbégte bokk ko ak mboolem jullit yi Eh, di dalal bu baax a baax tele bi nga xam ne mooy ITV ñëw fi ngir jël ay kàddu yoo xam ne dañuy waxtaanee tuuti rek ci bis bi waaye waxtaanee tuuti ci kilifa yi nga xam ne ñenn lan ci jàmbaari bis bi eh, yéen a ngi ñëw ci ëttub Cheikh Mouhamadul Amin Gaye Al Firdawsi di kenn ci jàmbaari Serigne Touba yi comme ni ko sëriñ Serigne ci mi jël kàddu gi léegi waxee eh, doonoon wàlli mag waaye doonoon ku bari woon xam-xam doon ku jàmbaare woon ci toolu bi lislaam bi waaye doonoon ku ràññiku ci waar wi nga xam ne moom la ci sëriñ bi féete woo mu àndoon ak sëriñ bi tànnoon kenn ci njabootam di sëriñ Alamin jébbaloon ko Cheikh Mouhamadul Moustapha mu demoon fa tamit liggéeyoon fa liggéey bu rafet balaq ngërëmal sëriñ Mor Moustapha ginnaaw bi mu yeggale ab liggéeyam ki sëriñ Cheikh mi nga xam ne moo wuutu woon Cheikh Mouhamadul Moustapha te matee woon ko sëkk euh, liggéey ba rafet lool ginnaaw bi nga xamee ne tamit noppi naa gis sëriñ Cheikh mi nga xam ne moo toogee woon jotaayub Cheikh Mouhamadul Moustapha mu yeggale ab liggéeyam ci sëriñ Mbacke Mouhamad euh, yàlla na yàlla dolli leen ay ngërëm euh, liggéey ba rafet lool bis bi nag di bis boo xam ne bisub yoonu murit wépp la waaye nag waa seex Cheikh Moustapha dañ cee ak jegle ndax. càkkutéeful Cheikh Mouhamadul Moustapha la mu santaane woon ko euh, mbooloo mi nga xam ne ñoo toppoon ci ginnaawam di ay taalibe di ay donga di ay seex waaye di njabootuk sëriñ bi daan ca dox doxiin wu rafet boo xam ne sàkku ak bëggam la woon moom it mu digle ko woon ci sàkku mbégum sëriñ bi ba tax ñu ci daan taxaw taxawaay bu rafet ren tamit bi mu ñëwee dajeeg fii jamono toll ci ay xat-xat ak yu mel noonu euh, sëriñ Moustapha mi nga xam ne mooy kilifa njabootuk sëñ Alamin mi nga xam ne moom ngeen ñëw ci ëttam bi moom it déglu ci ndigalul sëñ Moustapha Mouhamed mi nga xam ne moo toogee jataayub sëriñ Mouhamed ibnu sëriñ Cheikh ibnu sëriñ Mouhamadul Moustapha am ci ndigal mu jox ko ndigalul mu taxaw ca nam ca daan taxawee eh, waaye nag ñu sàmmonteeg li nga xam ne rek mooy li jamono laaj ba lenn lu ñuy ragal ci li nga xam ne moom la ñu wax ne mooy li xew ci jamono eh, man caa bañ a juddoo ba tax fa tabaarakallaahu ci suba ba léegi démb ba léegi sax laay wax lépp luñ ci daan def nañ ko daan defee lañ ko defee waaye nag bàyyi xel fi jamono toll euh, fa tabaarakallaahu euh, loolu mooy li nga xam ne moom la sëñ bi digle ci lañ nekk euh, li nga xam ne tamit mooy màggal gi mooy fàttaliku sëriñ bi jàng alquran jàng xasaayit def li nga xam ne mooy salaatu ala nabi def istixfaar def ko addee sëriñ Touba waaye def ko addee Cheikh Moustapha waaye dugalaale ci mbooleem njabootu Seexul Xadiim gi waaye mbooleem donga yi ak mbooleem taalibe yi loolu rek lañu fi nekkee bi nga xamee ne bis bi jub si na ba léegi lépp ci teewaayub sunu ci njiitul sunu kilifa gu baax gi di sëñ Moustapha mi nga xam ne ci ndigalam la ñuy waxee waaye moom it mooy kilifa ëtt bi nga xam ne moom ngeen euh, agsi tey di ëttub sëñ Alamin waaye di ëttub sëñ Mouhamadul Amin mi nga xam ne moo njabootee njaboot gii ngeen fekk si tey ñu di ci am mbégte lool fa tabaarakallaahu Euh, sëñ Alamine nag moom kenn la woon ci jàmbaari Cheikh Moustapha yi comme ni nga xamee ne Cheikh Mouhamadul Amine kenn la woon ci jàmbaari Cheikhul Khadim mi waaye sëñ Moustapha mii tamit di kenn ci jàmbaari Cheikh Moustapha Mouhamed euh, fa tabarakallahu démb rek siyaare ji nañ ko jébbal ko liggéey bi nga xam ne moom la ñu baaxoo def muy liggéey boo xam ne naka jekk cosaan la loo xam ne dafa bàyyi ko woon ca mag ñu baax ña sëñ Alamine mi nga xam ne mooy way juram mu ko daan def daan ko séq ak sëñ Mbàkke Mouhamed Euh, ba yëf yi agsi ci loxoom moom sëñ Moustapha mii mu yokk ko gën koo taaral gën koo rafetal ba mu gën a xemmee mu ba fa tabaarakallaahu at mu jot rek euh, day mel ne rek mi ñëw day gàccaal ma ko jiitu woon loolu nag day mel ne mbirum sëriñ bi moo demee noonu mbirum sëriñ Tuubaa moo demee noonu démbam ju ne rek tayam da koy gàccaal euh, sëñ Moustapha mi nga xam ne nag moo toogee jataay suñu àllamiin ñoo ngi am mbégte ci moom lool di ko ñaanal mu yàgg koo taxawee yàgg koo ànd ak ñi nga xam ne ñooy njaboot gi ñëpp ndax doxin wi rafet na mat na euh, fa tabaarakallaahu ñoo ngi am mbégte lool di di di sant bu baax a baax loolu yi mooy cëslaayul bis bi jëfee ndigalul sëriñ bi waaye barkeeloo ko ci doxin wi nga xam ne moom la mag ñu baax ñi daan doxee te sëriñ Alamin mi nga xam ne moo nekkoon jëwriñ ci kër gi ci buntu kër Sëriñ Moustapha di kenn ci njabootu Sëriñ Mamadou Amin daan ci taxaw loolu rek nee na moom loolu mooy li muy xool ci lay dox boobi ba léegi kon daal looli mooy bis bi loolu mooy cëslaay li loolu mooy li nga xam ne mooy taxawaay bi nga xam ne moom lañ ci am loolu rek lañ ne woon maanaam faaw rek ñu jàllale ko boo ko defee rek ñu xamee ne noonu it mooy taxawaay bi euh, ndigal lañ ciy déglu ndigal lañ ciy jëfee euh, niñ ko daan defee rek lañ ko defee lu ñu ci yokkul rek wàññiwuñ ko. yan hmm. ko hmm. hmm. rawatina ñi nga day mel ne sëriñ Alamin moomu kenn la woon ci ñi yàlla di wax ci alquran alkarim ne min almuminina rijalun sadaqu maa aahadu llaha alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadiru wa maa baddalu tabdila kenn la ci góor yàlla yi nga xam ne li nga xam ne moom la seen ay ruu si ñeewante woon ak seen borom ca alyawma alastu bi rabbikum ca ko matal la bokkoon doonoon jàmbaari lislaam waaye doonoon jàmbaari cheikhul xadim doonoon murit saadix bu dëggal bu sellaloon bu amoon pësteef lool démb rek ñoo ngi koy wax ci bi ñuy yébbale liggéey bi nga xam ne moom la ñu baaxoo def tama ko doon junj léegi euh, bi nga xamee ne moom la mujj ànd ak ñun ci liggéey boobu dafa wax ne liggéeyal Sëñ Tuubaa da ko doon doog a xeeñ loolu nag dafa mel ne pësteef boobu nga laaj loolu feeñ ne ci ndax ku liggéey ba sa wàcc jot nga am juróom-ñett fukki ak juróom-ñett ci saahir ci lu ñu xam nga xam ne loolu mooy sa mujjantalu euh, jébbale liggéey ci saahir bu ñu mën a xam ci sa jëmmi bopp nga wax loola pësteef la boo xam ne ab joxañ la waaye joxañ la boo xam ne mi ngi jëm ci njaboot gi nga xam ne ñun ñoom la fi xalse te bàyyi te loola tamit day mel ne sëriñ bi di sëriñ Moustapha dégg na loola wax pësteef boobee mu wax der ga ba mu tekki ci ca ndiggam ñëw ci moom mii loola rek loolu la wéyal moom la continuer loolu tamit moom la nàmpatal ñi nga xam ne ñoo di ay rakkam loola nàmpatal ñi nga xam ne ñoo ay dongam ñoom it ñu nangu ko lool topp ci ginnaawam euh, ànd ci ak moom booba ba léegi te lépp di mat na nga xamee ne noonu la moom la ko bëggee woon moom suñu yàlla mi noonu la ko daan taxawee moom it mu bëggee ko noona di ci taxawee noona kon pas-pas rek mooy li nga xam ne mooy li am solo euh, ndax moom la mag ña wane woon euh, pas-pas mooy li am solo mooy mooy mooy mooy lépp lu fi waaye am rek mooy li la ko may euh, ndax sëriñ bi loolu yi mu waxoon Seex Mouhamadul Moustapha waxoon ko sëriñ Fàllu waxoon ko mbooleem mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak moom ne leen li fi nekk kat li koy maye du ab juddu du ma bàyyi kenn du ma nijaayi kenn du ma maami kenn waaye nag maanaam li fi am lépp maanaam li koy maye mooy pas-pas euh, ba waraloon euh, sëriñ Fallou doon wax ne biatu bu nu watee bil iraada lakum li koy ahda bi xarqi aada jaay naa sama njureel jëndee ko ak taalibe mag ñooñu ñoo xamoon sëriñ bi xamoon lan moo di pas-pas xam lan mooy li nga xam ne li ñu bëgg lu leen koy may ñu defoon tamit moom la mag ñi doon xeeñtu sëñ àll mi nag sëñ Mouhamadul Amin ak ñëpp ba la nga xam ne moom la moo di seenub cër ñu am ko ñu am ko nañ ko bëggee woon kon ñoo ngi soññ suñu bopp waaye di soññ mbooleem donga yi ci ñu gën a dëgëraatal laxasaay yi gën a yokkaat pas-pas yi te xam ne moom rek moo fi maye dara moo xam ne moom rek moo mooy li fi maye dara ñoom la leen waroon def nañ ko wàcc nañ euh, fa tabaarakallaahu ku bëgg a wàcc tamit da ngay xool la nga xam ne mooy seen euh, mboor nga topp ko jéem caa jaar waaw loolu rek mooy li nga xam ne moom lañ la woon danañ ko jottali bu ko defee ñu dégg ko te bàyyi ko xel te toujours rek ñuy suñu ay kilifa ci li nga xam ne mooy euh, yoon wi ñu yoon ñi jéem a topp ci seen bu ñu bëggee li nga xam ne moom moom moom la ñuy sàkku bu ñu ko bëggee am nañ ko war a amee fa tabaarakallaahu loolu daal lañ ne woon nañ ko jàllale ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm waaw fa tabaarakallaahu loolu moom euh, sëriñ Mouhamadul Moustapha la euh, sëriñ Mouhamadul Moustapha nag lu mu def rek sëriñ Tuubaa mooy ko ko def ndax bi mu koy def di ko sàkku loola ci nekk gu mu nekk sëñ Tuubaa la woon mu sàkku woon ne maanaam képp koo xam ne bis bi fekk na la ci kaw suuf nga yor ak ruu lépp loo jàppoon bàyyi ko ñëw fanaan si Tuubaa ku ko mënul tamit fa nga nekk moom moom nga fas nga fas euh, loola nag kon ndigal la lu bàyyi ko ci moom la loo xam ne euh, ci la ñu nekk euh, ci la sunu sëriñ yu baax yi nekk di ko jëfee Euh, di ci nàmpatal njaboot gi bis bi saa yu agsee dañ koy fanaanoo dundal fanaanoo jàng alxuraan jàng xasaayit def istixfaar def salaatu ala nabi ñaanal ñi nga xam ne ñooy euh, sunu kilifa yu baax yooyu waaye def ko addee sëñ Tuubaa ci jiital ko ci lépp ndax bis bi ab bisam la ndax day bisu mbégte bisub mbégte la ndax sëñ Tuubaa ci boppam boo demee ci ay mbindam da fekk muy wax yow yàlla maa ngi lay ñaan nga def bis bi nga xam ne mooy bis bi may dajeeg yow muy bis bi ma gënal te bis bii bu ñu manee wax ci saahir ci la sëriñ bi dajee ak boroomam ci la sëriñ bi dajee ak boroomam ci la ñibbi si fii ci Touba ñibbi aljanna kon bisub mbégte la euh, bisub xéewal la euh, bisub teraanga la ba tax na sëriñ mu Moustapha mi nga xam ne moom moo mooy mooy lépp sëñ Touba euh, gisoon bis bi santaane woon ko sàkk woon njaboot gi ñu ciy taxaw loolee la ñuy topp ba tey di ko xeeñtu kon bisum ngëneel la boo xam ne Euh, ëpp na ci ab murit mu yëg ko nekk ci kaw suuf euh, yorug ruwam mu di ko mu di ko mu di ko mu di ko bañ a dundal loolu yi rek la ñu xam sunu kilifa yu baax yi ba tax ñu nekk ci di ko dundal loolu daal mooy mooy li nga xam ne mooy ngëneelul bis bi ndigalul sëriñ Modou Moustapha la te sëriñ bi daa bindoon ne laata tafalu shay'an bi gayri izni fal iznu shartun fi qabuli sha'ni bu leen def lenn ci lu du ndigal ndax ndigalkat mooy chartu nangu mbir ku bëgg sa mbir nangu dangay ngay sa kilifa te sëñ Mounou Moustapha mi nga xam ne ginnaaw sëriñ bi ci saahir moom mooy kilifa ak mbooleem murid yi mooy ki ko sàkk woon mooy ko digle woon loolee tamit ca lañu nekk boobu ba léegi kon sëriñ bi loolu rek mooy li nga xam ne moom la mën a tontu ci loolu euh, fa tabarakallah alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah bokki jullit bokki taalibe noo ngi leen di nuyu noo ngi leen di siyaare noo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci daje bi ci suñ jotaay bu tedd bi di jotaay bu lislaam waaye rawatina jotaayub bu taalibe noo ngi ci am mbégte lool di ci siyaare ñëpp di am mbégte lool ci suñ daje bi li daje bi nag dara waralu ko lu dul ni ko Cheikh Basir waxe sama rakk ju baax ji Cheikh Ahmadou Bamba moo liggéey ab liggéeyam ba liggéey bi sontu mu mu mu mu mu bàyyi koo fi digal Cheikh Moustapha muñ di ko ñaanal ci bis bi bis bi nag làmb lu rëy euh, Cheikh Moustapha mi nga xam ne moo ko sosoon euh, waxoon nii ko sëñ Bass waxee rek euh, bu boobaa képp koo xam ne yàlla man loo na la ko rek na nga fanaan si Touba ku mënta fanaan si Touba foo mën a nekk nanga nga ko fa dundal. Euh, ku doon jëm si Touba sax te amul paas nga yor loo may jox na nga ko ko jox euh, moo ma gënal moom Cheikh Moustapha loolu la waxoon boo yoroon addiye di ma ko yut nga gis koo xam ne bëgg naa ñëw Touba te mënut a ñëw Touba amul lu mu paase nee na la nga ma naroon a jox jox ko ko ndax mu mën a ñëw Touba Cheikh Moustapha bu sañoon bis bi bu dikkee képp ku di murit day fanaan si Touba euh, ba tax na. bis bi bis bu tedd la bis bi bis bu kawe la bis bu am solo la ci julliti yàlla yi waaye bis bu am solo la ci ñun kon nag noo ngi sant yàlla bu baax ci def gi nga xam ne def nañ ci aslëf ngir ndigal ndax sunu waajur seex mo seex alamin seex Amadou Lamine mooy waajuram da ko jàngaloo alxuraan ba mokkal alxuraanul karim mu di ko seet alxuraan ji sëñ Modou Lamine daa seet alxuraan yi sëñ àll ba mu xam ne mokkal na alxuraanul karim mu ne ko dama lay jox seex Modou Moustapha Cheikh Modou Moustapha boobu moo fi sëñ Touba mu ne ko dama lay jox seex Modou Moustapha te jox gi ma lay jox Cheikh Modou Moustapha damaa neex te dama cee bëgg a fekkes lëf loolu la wax mënoon naa la bàyyi nga topp sam jàng fu la neex mu àgg fa waaye lii mooy li ma gënal mu jaayanteeg moom mu Moustapha fab sëñ àlla jox seex mu Moustapha sëñ àlla dem ca kër googee nekkal fa sëñ Madu Lamin liggéeyal ko fa liggéey bu rëy rëy boo xam ne képp koo xam ne xam nga sëñ àlla xam nga ne la ko sëñ Madu Lamin doon sàkkloo ku ne xam ne ne sëñ àlla def na ko ba def ca sax aw ñaraas ñaraas laa wax waxuma def ko da koo def ba ñaraas la ko sëñ Madu Lamin doon def loo ah euh, mu nekk kër sëriñ bi nee na dafa am bis bi ku sëñ bi joxee ci daara ji ne dañ ko daa defoon dongo yëpp di def dem ca daara ja di bay di gor di def lépp li dongo yi di def nee na bis ab loxo dal ma fa bu metti nee ñu ak ak ak sunguf nee ñu yanu ma indi ci Cheikh Moustapha fii ci Daaru Xudóos nee Cheikh Moustapha di ma xool di ma xool di ma xool ba mu yàgg mu ne ma àll mi lii fam la dale woon waroo faa dellu lisaanul xaal la ngërëmam dikk na na lii fam la dale waroo faa dellu euh, waaye loole ca la ca la ca la sëñ Mourou Moussa daal di koy faj di ko faj di ko faj ba mu wér mu bàyyi ko ci kër gi di ko def loolu ko soob ci kër gi wax na ne bi suñ Mourou Moussa bi mu fi nekkee bi mu ko bàyyi ci kër gi bu sëñ Mourou Moussa daa mas di dem fenn da koy woo ba mu ñëw ne ko alamin fere yi bu ñu werante ndax ku werante àttana xuloo ku xuloo àttana xeex ku xeex àttana rey te ku dem sawara fere yi bu ñu bu ñu def loolu daf na ko fere yi bu ñu werante ndax ku werante àttanu xuloo ku xuloo àttana xeex ku xeex àttana rey te ku rey dem sawara loola bu masaa sëñ Mourou musaa mas di génn di bëgg a dem fenn day woolu suñu alamin ba mu ñëw mu wax ko baat yi euh, moom ci boppam euh, da daa wax ne bi mu nekkee daara Cheikh Moustapha ku euh, maanaam bay kum ko mas a defandool nee na moo la ko gën a gaawle dàqale la ko gën la ko rafetle loolu ci làmmiñam laa ko waxee lii may wax ni moo ko alxuraan jii ñu bind yam ku masaa ku ma masaa bañdool maa la gën a maa la gën a rafet bay dàqale la ko dàqale alxuraanul karim buñ tasee sëñ bi mu ëpp lëg taalibe yett yi suñ bee daa wax maa dégg ci sama nopp muy lu leer nañ dàq laa bay dàq la alxuraanul karim buñ tasee sëñ bi mu ëpp lëg taalibe tey taay euh, loolu yett yooyu ma wax ku xam sëriñ bi xam nga ne ci yett yooyu ci liggéey ci yooyu rek la nekkoon bëggoon sëñ Tuubaa lool doyloo ko lool fu mu mësaa gis lu rafet ab sëriñam rek lu ko yéene bu ca mënee jot daal di koy jot jébbal sëriñ bi mas naa toog fii ci buntu jàkk ji maa ngi koy nettali tay rek benn waay romb fi yor xar mu ruy moo xam ne laa weex tàll bi jëni rëy mu ne mu daal ne xëy wol wol ma kee mu ñëw mu ñëw mu ne ko yow lii sama sëriñ ba rek la jekk Euh, mu ne ko loo ci loo ci loo loo ci bëgg mu ne dama koy jaay waxanteeg sëñ àlla ci baat yu gàtt sëñ àlla daal di fab euh, daal di ko jënd xar moomee daal di woo nañ ma génneel at bi nañ ma wol ab safur génne oto bi ma daal di ko yót sëriñ ak taalibe programme baaxu ca ndax pro kuy programme euh, da nga taxaw lu yàgg doo ko def doo ko doo ko defal dara sëñ Touba ak taalibe programme baaxu ca ndax loolu bi mu koy de programme ko daa toog ci bunt bi rek mu fekk ko fi rek mu daal di jaayante daal di jënd loolu daal di koy fab ci si bi ñu fi jàpp xar mi di ko dugal ci oto bi sax daf na ngeen wax da ngeen def ndànk xar mi ndax alali sëñ bi dut sama alal pas-pas ku ko ëppale sëñ alamin man xaw ma ko dadaa wax gaa yi ne leen bu ma bokkee ak yéen fu ñuy yendu maa ngi yéen du ñu bokk fu ma fu ñuy fanaan du ma seen moroom du ma seen màppandoo ku xam sëñ àll xam nga loolu ci moom li ko sëñ Modou Lamine doon sàkkuloo ci seex Moustapha defal na ko sëñ àll ni mu ko bëggee ndax maa ngi da ko waxoon sax ne ko ñëwal liggéey dem kër seex Moustapha boo demee ba ñëw ku maroon naan ku xiifoon lekk ku maroon naan ku tilimoon fóot lu wér a la ku xiifoon lekk ku maroon naan ku tilimoon fóot loolu la waxoon loolu la sëñ loolu sëñ Modou Lamine waxoon sëñ Alamine boo demee ba ñëw ñëwal liggéey boo demee bu ñu ku xiifoon lekk maroon naan ku tiliman fóot loolu lu am la lu wér a wér la te jomm nan di yëkkati ci sunu làmmiñ di wax loo xam ne te ci rajo lañ nekk loo xam ne du dëgg yàlla nu ci yàlla musal te yàgg nañ koo wax di ko wax kon nag Cheikh Ahmadou Lamine ku am cër la ci Cheikh Ahmadou Bamba ndax ñi toog ak ñi toogut ak ñiy gëstu ak ñiy dégg ku ne xam ne si Amadou Lamine am na lu mu doonoon ci sëñ Touba ba bi muy loolu euh, euh, euh, feeñ na ci bi muy bàyyi ko njëreem di ñëw Touba kon noonu dañuy sant yàlla rek te xam ne yàlla jox nañu kilifa gu matu kilifa kilifa gu mat kilifa nag kenn ku ne bëgg nga ko kon nag ku ko am yàlla jox la ko téye ko sa junniy loxo te lépp loo bëgg nga sàkk nga nga di ko wut ci yàlla nga jaar ko ci moom. soo ko demee soo ko defee da nga ko am ndax li ngeen wax léegi laa tafalu say an bi xëyri isnin fale sunu sartun fii qabali saani nit nag lu mu am da koy xam waaye am dara tam mate lépp te xamoo ko lool dara jëru ko waaye am nañ lu ko mate te man day euh, dama bëgg rek nit ñi jariñu ko waxuma ko ngir dara dama bëgg rek nit ñi jariñu ci moom damaa jóge Firdawsi ñëw fii fekk ko fii ci biir mu ne ma Moustapha ma ne ko Mbàkke mu ne ma loo fi loo yut fi ma daataa tontu mu ne bu fi ñëwati te amoon digal bu fi ñëwati te amoon digal daal di tàmbalee waxtaan ak man rawatina bisu daaru xuddoos bii waxam wax ak man loo xam ne jomb naa di ko nettali fii ci jataay bii ndax ndax du mbirum jataay waaye keroog ci ñu ànd ak sëñ àlla laa bëgg ñu gën a xam sëñ àlla ñu gën a mën a jariñu ci moom waaye keroog daa def loxo ba nii ne ma Moustapha ma ne ko Mbàkke mu ne ma fii ma toog ku ma gën nekkul fii yëpp man moom yàlla wax dë man moom yàlla wax dë bu dee fen yàlla xam na bu dee dëgg yàlla xam na kon nag ñi ngi sant yàlla bu baax te xam ne bis bii bis bu nu amal njëriñ la Cheikh Ahmadou Bamba liggéey liggéeyam bu rëy nii sunu borom fab gouvernement bépp bépp bépp bépp sunu borom daa fab gouvernement bépp jébbal sëñ Touba bépp laa wax bàyyiwul dara la fab jébbal sëñ Touba. bis bi Cheikh Modou Moussa xam sëñ Touba li ko yàlla fayee mu ne bu saa yu dikkee képp ku di murit bu bëggee tàggoog ba ta bàkkaar bu bëggee seet wecc na fanaan Touba na fanaan Touba bu fanaanee Touba ak lu la mën a taq ci àddina boo xëyee te dundul ko ni nga xamee ne noonu la ko sallallahu alayhi wa sallam bëggee woon boo xëyee danga da nga seet wecc baraw perkaal kon nag gaañi nañu xamaat kan mooy Cheikh Ahmadou Bamba nañu xamaat kan mooy Cheikh Ahmadou Bamba ndax moom euh, suñ njariñ la nun ndax nit nag boo xamee ne euh, lii amal na la njariñ da koy xam te te jamono yu ne nga di ko wut te wut bi du mas a doy ndax li sëñ bas nii sëñ Alamine ak mu jëm daa wax ne xetuk Cheikh Ahmadou Bamba da koy doog a xeeñ sunu su ko sunu borom mayee dund mi ngi doog a takk laxasaayam fas yéene liggéeyal Serigne Touba ba dégg naa ci làmmiñam bis mu ne Cheikh Modou Moussa mas naa jàpp ci loxoom ne ko alamin mu ne ko mbàkke mu ne ko ëllëg yowmal xiyaam lu ma sunu borom sédd maag yow ñoo koy bokk bi mu demee ba nga xamee ne nekk na fi am loo at yoo xam ne sunu borom mayen na ko ko mu am fi bu ko dara masaadal day wax ne lii ci tolof tolofi àddina rek waaye man jógaguma fi de da ko daa wax lii ci tolof tolofi àddina rek waaye man jógaguma fi ndax man xam naa at bi may dem weer wi bis bi lépp suñu àll da ko daa waxal boppam at mi weer wi bis bi suñu yàlla da ko daa waxal boppam lu ko masaa dal day wax ne man jóguguma fi xam naa waxtu wu ma jóg kon kilifa gu am solaa ngoog kilifa guñ mën a jariñoo ngoog kon nag nañu fonkaat sëriñ bi nun ñëpp takkaat laxasaa yi gën a dëgëral sunu pas-pas te gën a sàkk lu baax te xam ne lu baax du doy te xam ne nit ku ne loo am ba yaakaar ne am nga dara am na ku la ëpple koo mën a doon loo am ba yaakaar ne am nga lu doy am nga ku la ëppale ki la ëppale nag euh, euh, sëñ Touba bi mu dikkee ci liggéeyam bi jaar ci yoon wi di liggéey da doon escalier escalier bu mu dem euh, sunu borom jox ko garaat boobu mu xam ne am na leneen lu nekk ci kanamam mu wut mu wii bu àggaatee foofa sunu borom jox ko garaat boobu mu wii ba kàpp lépp bandar ndar képp lépp sëriñ Alamine fi may tëjee dane euh, sëriñ Touba li yàlla amoon lépp jébbal na ko sëriñ bi comme neex comme naqari ndax nee na nii ñuy branché tiwo yi ci suuf si nga xam ne kenn ku ne yaa ngi rëbbi na sa biir kër boo tijjee mu xelli nee na noonu la sunu borom fabe gouvernement bépp tiwete ko ci kaw asamaan ci fab gu cuur yëpp jëm tiimali Touba tiimali tuubaa kon ku jariñooti rek ma du Bamba ci nga jariñu kenn mënut a jariñu te wax na mbind yu bëree bëri ñun ñëpp xam nañ ko waaye ku weddi ëllëg yomal xiyam dana mureeku ku weddi bisa ngi ci kanam lépp dana mureeku yàlla bu mu gaaw wasalaamaaleykum. ndax na nga xam ni liggéeyal nga leen li nga amoon lépp. barke xaadim rasul jox nga ko mbooloo lu la waaye mos a jox bismillahi rahmaani mbokki jullit yi mbokki bi yi ñuy seetaan ginnaaw bi ñu ñaanalee ñi ko fi nekkal ñu yàgg fi te ñu ñëw tey fii ci ëttub kër Cheikh Mouhamed Lamine eh, ci benn bunt kër ci kër sëñ Mouhamed Lamine Gueye muy kër sëñ ki ko fi nekkal di sëñ Moustapha Gueye ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér eh, wax ne rek ñu ñëw teewu fi E, waa télévision bi ñëwoon teew fi doon fi jël si ay kaddu muy kàddu yi e, xamle ni ko sëriñ Bachir waxee jaar ci sëñ Bàcc Fall ci sëriñ bi kaddu yi mu ko yi mu ci sof noonu lépp di ay kaddu yoo xamante ne bii ngir leeral rek muy jubluwaay bi ndax ñoom dañ fee nekk ngir xamle li nit ñi xamutoon wala lenn li nëbbu woon te ñu war koo xamle nit ñi mën cee jariñu te kenn xamu ko woon loolu moo waral seenu teewaay fii ci kër sëriñ bi. ngir xam ne sëñ Alamine dafa bokkoon ca jàmbaari sëñ Mourou Moustapha yi bokkoon ca kilifa kili kilifa nekkoon ca kër sëñ Mourou Moustapha te kenn mënu ko fa woon nag ndax mag moo xamante ne bii dem nga ba am juróom-ñaar fukki at tekkiwoo ak der juróom-ñett fukki at ak lu topp tekkiwoo ak der kon gone gu ndaw goo xamante ne bii liggéey daa jot ci yow nga bëgg a tekki ak der loolu xam nga ne kon defu ko dara yow kon loolu ab soññe la. lii tamit bu ñu ko dee defit ngir soññ taalibe yi nga xamante ne bi mbokki taalibe yi nga xam ne ay am nañ pas-pas ci sëriñ bi ak fu ñu mën a bokk rek moo tax ñu di ko def loolu moo tax muy ab soññe bu yaatu boo xamante ne bi moo tax ñu ñu def ko bis bi nag def am beneen beneen kiimtaan bu ci feeñ mooy bis bi sëriñ bis bi ñu indi woon sëriñ bi Touba bis bi mu tombee loon bi koy denc fii ci Touba bis boobu dafa tombee waat ak moom muy talaat ndax sëriñ sëriñ mag yaakaar naa altine la la la la la lañ ko lañ ko yëgle ca njëram ne sëñ bi wàcc na liggéey talaata la ko sëñ Mourou Sow indi denc ko fi kon dafa mel ne bis bi kon nam demee woon la demee kon jàppees na ne lu ci waaye ñaan te ko ci ni ko kilifa yi waxee da nga ko ca am ndax sëñ Mourou Sow du def lenn ci bakkanam lépp lu mu def ci ndigal sëñ sëñ Touba la ko def te dégg ngeen li mu ci waxoon nee na saa yu ñëwee te bis bi soo mënta ñëw Touba na nga dàkk xàll wi jëm Touba taxaw fa ñaan li nga bëgg. wax ne képp ku fanaan ci dëkk bi da nga set wecc ci ay bakkaar loolu suñu àll mi toog nañu fii ba tàyyim wax ko kon loolu loo xamante ne bii bis la boo xam ne duñ ko moomale rek daaru xuddoos képp ku ci képp ku ko ku ko moomale daaru xuddoos it yow yaa xamul lu xew rek waaye bis bi moom yoonu murit yëpp ko bokk waaye loo gis lu ne bi nag daaru xuddoos la nekk ndax ñoom ñoo ko woote ñoom ñoo ko fi woote waay fi la jóge waaye nag bis bi ñëpp njabootu sëñ Tuubaa geeg taalibe ko bokk loolu moo waral teewaayu euh, télévision bi fii ci kër gi mu ñëw fii di fésal liggéeyu sëriñ bi ndax li lépp ci wane liggéeyu sëñ bi la bokk looloo tax mu ñëwoon fii ci ëtt bi kër sëriñ Alamin Gaye jàmbaaram ji sëñ Moustapha di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér niñ la ko doon waxee rek li ñuy waxit ci xol lañ koy tëbbee ndax eh, ab sag moom sag rek la mën a doon te sag bi it wax dëgg sagal nga ko ci sëñ Mën Lamin nga ko sagale sëñ Alamin sa wajur nga ko sagale njaboot ñi nga ko sagale loolu nag kon dañ lay ñaanal mu yokk lool te lépp ànd wër kattan taalibe yi nga ñaanal leen baax suñu borom defal leen ay xéewal ndax mooy tax lépp loo song ñu mën koo def ni ko bëgg kon yéen taalibe yi tamit ñu ngi leen sant baax di leen gërëm seen bëgg ak seenu cofeel ndax bëgg rek moo am solo ndax yàlla lu yonent bi lu mu am tey bëgg ko yàlla bëgg tax mu am ko suñ Tuubaa lu mu am ci yonent bi bëgg gum bëgg yonent bi moo ko may taalibe yi mag ñi nga xam ne ñoo ànd na Sëñ Tuubaa lu ñu am ci Sëñ bëgg moo moo leen ko may kon bëgg sab sëriñ moo ëpp doole lépp kon ñu ngi sant ñëpp di sant waa télé télévision bi baax a baax di leen ñaanal suñu borom yokku leen di sant mboolem ñi fi jël kàddu ñëpp di ñaanal suñu Moustapha baax a baax ñu teew ko at yu bëree bare bare ci barke suñu mënu Moustapha wasalaamaaleykum wa rahmatullah